ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay kay bi dañu xam moom mi nga xam ne rek moo taxawu APR jamono ji nag ñi nga xam ne rek ñoo di ay farandoom won nañ ko ginnaaw yéenekaay bi dañu xam ne moom Moustapha Diakhaté jaxate kay jamono ji ci l'observateur kàddu yi nga xam ne daal yëkkati ko dafay xam ne daal dàq gi nga xam ne daal moom la wax ne dàq nañ ko moom daal yooyu yëfi caaxaan la ko jàppee moom Moustapha Jaxate ci yéenekaay bi enquête yéenekaay du xamale moom Moustapha diggante Moustapha Jaxate xam ne rek ñoo di APR jamono ji nag seen ak diggante jeex na laaj source a yéenekaay du xamale moom mi nga xam ne kay moo taxawal man koo taxawu jamono ji man rek moo di Samba mi nga xam ne rek moom la jàppoon ne moo faatoon Fatoumata Matar yéenekaay bi dañu xamal ne moom Samba kay jamono ji dogal ba wàcc na ci fànn moom kay tëj nañ ko ngirug dunam ak liggéey goo xam ne rek sëñ tabañ grand place yéenekaay mel ni ko naan ko waaye loolee am na waaye taxul ñi nga xam ne rek ñooy njabootu ñi nga xam ne rek ñoom kay lañu bëgg moo di ñi nga xam ne daal Samba Sow tudd na leen ji ngir ñu woo leen lijjanti seeni mbir ci lépp loo xam ne rek jëm na ci fànn maanaam daal ñu woo leen déglu leen feneen foo xam ne rek amutab dégloonte lépp loo xam ne rek jëm na ci mbirum Guy Marius ñu bàyyi ko yéene kaay gi duñu xamal ne loolee nag mujjuta antu waaye nag Seydi Gassama nag jàpp na jamono ji donte nag wàcc nañu ñi nga xam ne rek ñoom la ñaandaloon ki nga xam ne rek moo di Guy Marius a wàllug wérgu yaram yéen wàllum jàngale mi yéen kaay gi duñu xamal ne ñii nga xam ne daal tekk nañu seen ndombal tànk tekk nañu seen ndombal tànk ay jege ñaalu ñi nga xam ne rek ñoo di mari ñaan lañ